Euh, salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di jaar bu baax ñun waa Pastef Touba ndigal li nga xamante ni Serigne euh, mun Serigne euh, Mountakha Mbacké def na ko ñun dégg nañ ko te tamit ñun ay kilifa lañ am na noo xamante ni duñ ko doxe mais tamit mën nañ ñu bañ a tooñ xam nga tey Macky Sall fii lay jaar ñu am suñu permanence ci kaw tali bi lii menuisier métallique moo ko defaroon xool leen menuisier métallique moo ko defoon ñu fixé ko fii. ñu ñëw yéeg ci kaw terrasse bi dindi sunu euh, gis ngeen affiche bi ñaari affiche moo fi nekkoon ñu dindi yëpp xamuñu kan moo ko def na duñu accuser kenn mais tamit euh, déglu lañ gën li mais bu ñu tooñ aussi tamit ñun ay xale lañ ay xale lañ ñoo xam dañoo bokk ci réew mi xam nañ ne président institution la am na loo xam defewuñ ko mais tey bu ñu tooñ am na foo xam bu buñ fa àggee rek euh, ñoom la mais du ñun ñun ay taalibe lañ ci suñuy waajur ba nii ñu toll am na loo xam tamit day doon provocation te nag nit ki boo ko fekkee ci biir këram euh, bëgg ko teg lenn li day taxaw ne la yàlla rek ay buur da taxaw bañ te ñun tamit suñu bañ du neex loolu mooy dëgg lii rafetul jekkul permanence lañ yor luyoo ko bokk ci dëkk bi teg ko fi ñu ñëw fekk ko fi dindi ko te euh, euh, menuisier métallique defar ko mu dëgëroon trop sànni ko beneen bi ñu xotti ko loolu rafetul loolu nag la ñuy alerter sénégalais yëpp te xam ne ñun am na loo xam nekkuñu ci te xalaatuñu ko donc bu fekkee ñoom. dañu bëgg a amut amuñu fi dara liggéeyal lañ fi li ñu wax président de la ne moom lañ ko liggéeyal defuñu ko fi mais bu ñu yàq bu ñu tamit taqal nit ñi. loolu ñu doon wax sax di ko yóbbu ci média yeeg yooyu ñoom la ñoom waa APR yi nga xamante ne ñoo frustré wu ñoo bëggoon a ñëw pour saboter pour giñ ko waa Pastef ñi ngi bëgg sonn nag ça suffit doy na voilà loolu lañ doon wax pour ñoom tamit ñu bàyyi seen diabolisation yeeg yenn yu ñàkk fayda yi yi nga xamante ne ci lañ nekk. Pastef Touba nag euh, euh, euh, am na loo xam nekkuñ ci mais waa APR nañu xam ne ay xale yu ndaw lañ ko séqal nañu bàyyi seen yii ñuy def yu ñàkk fayda yi nañ ko bàyyi loolu mooy dëgg wasalaam. salaamaaleykum mbokki senegal ñoo ngi leen di jaar bu baax ñun waa Pastef Touba ndigal li nga xamante ni Serigne mun Serigne Mountakha Mbacké def na ko ñun dégg nañ ko te tamit ñun ay kilifa lañ. am na noo xamante duñ ko doxee mais tamit mën nañ ñu bañ a tooñ xam nga tey Macky Sall fii lay jaar ñu am suñu permanence ci kaw tali bi lii menuisier métallique moo ko defaroon xool leen menuisier métallique moo ko defoon ñu fixé ko fii ñu ñëw yéeg ci kaw terrasse bi dindi sunu euh, gis ngeen affiche bi ñaari affiche moo fi nekkoon ñu dindi yëpp xamuñu kan moo ko def na duñu accuser kenn mais tamit euh, déglu lañ digal li mais bu ñu tooñ aussi tamit ñun ay xale lañ ay xale lañ ñoo xam dañoo bokk ci réew mi xam nañ ne président institution la yor am na loo xam defewuñ ko mais tey buñ ñu tooñ am na foo xam bu buñ fa àggee rek euh, ñoom la mais du ñun ñun ay taalibe lañ ci suñuy waajur ba nii ñu toll am na loo xam tamit day doon provocation te nag nit ki boo ko fekkee ci biir këram euh, bëgg ko teg lenn li day taxaw ne la yàlla rekk ay buur da taxaw bañ te ñun tamit suñu bañ du neex loolu mooy dëgg lii rafetul jekkul permanence lañ yor luyoo ko bokk ci dëkk bi teg ko fii ñu ñëw fekk ko fi dindi ko te euh, euh, menuisier métallique defar ko mu dëgëroon trop sànni ko beneen bi ñu xotti ko loolu rafetul loolu nag la ñuy alerter sénégalais yëpp te xam ne ñun am na loo xam nekkuñu ci te xalaatuñu ko donc bu fekkee ñoom dañu bëgg a euh, amut amuñu fi dara liggéeyal lañ fi li ñu wax président de la république ne moom lañ ko liggéeyal defuñu ko fi mais bu ñu yàq bu ñu tamit taqal nit ñi. loolu ñu doon wax sax di ko yóbbu ci média yeeg yooyu ñoom la ñoom waa APR yi nga xamante ne ñoo frustré wu. ñoo bëggoon a ñëw pour saboter pour giñ ko waa Pastef ñi ngi bëgg a sonn nag ça suffit doy na voilà loolu lañ doon wax pour ñoom tamit ñu bàyyi seen diabolisation yeeg yenn yu ñàkk fayda yi ñi nga xamante ni ci lañ nekk Pastef Touba nag euh, euh, euh, am na loo xam nekkuñ ci mais waa APR nañu xam ne ay xale yu ndaw lañ ko séqal nañu bàyyi seen yii ñuy def yu ñàkk fayda yi nañ ko bàyyi loolu mooy dëgg wasalaam